asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences événement bi nga xam ne am na bu ci Moussa Balla Fafana jaxasoo loon mooy Ousmane Moussa Balla Fafana dama ne xam naa ko xam naa Canada la nekk gëmul Ousmane Sonko gëmul projet bi fii lañ nekkoon nag ñun ñun ba ñuy ànd ak Ousmane Sonko mi ngi fii ànd ak Ablaye Wade ak Baara Gueye Baara Gueye papam gëmunu billaahi wallaahi gëmu leen te lii ma leen di wax bu ngeen ko weddee demit téléphone télévision may mënoon ndiiru émission ba fa def ngeen déglu ko lam doon wax gëmul Ousmane sonk Karim Wade la gëm Abdoulaye Wade ak ak Baara Gaye gëmu leen xam naa ko lu yàgg waaw liggéeyal naa nekk fi di dóorantu lu mat quatre ans cinq ans musta na nga bokk maa ko ne ñëwal nga bokk Pastef ay xale te xale nga laaj leen xale nga te wa par ay gone ñëwal nga and ci pastef way yeen xamul leen ko double jeu lay jouer il ne veut même pas voir Ousmane Sonko te ku tek alcorane ma wat ko te gisagu leen dara ci mom te da ngeen gis lu reuy wa sagari diplôme yi ngeen top mo leen toroxal wa jël sa njoogu namé ko place bi mo gën lay mo gën bay leen diplôme yi ngeen di top billahi jànguñu xamuñu surtout ñi nga xamni ci pays réew tubaab bi leen jangé wax naa bay bëgg a dee mais du ngeen ma déglu lépp lu ma leen wax gis ngeen ko billaahi wallaahi Moussa Bal da foofa ne mii ah wenn dàllu baara gay moo ko gënal Ousmane Sonko te li ma la ku teg kaamil ma waat ko te bu ngeen ko waaree seet ay waxtaanam da ngeen gis li ma leen di wax émission bi mujjee ci kër may mënoon nduur la xaw ndi dem leen ngeen dégluwaat ko waaw Ousmane yéen a war a nekk ay nit wala parce que dafa rafle ay cadre xanaa mais ay nit a ngi ci àll bi bàyyi leen ku déggul fran ku jàngul français rek ngeen ko jël jël leen sama doom yaa ngi fii jàng mokkal yor lu ne ci dëkk bi aux États-Unis ngeen bàyyi leen di tànn ay làkkati tubaab pour lan ah billaahi wallaahi postam boobu mu yor ku ko jox seex baara mu doxal ko da ngeen a complex da ngeen a complexé billaahi wallaahi saa njóogu moo ma gën a doy man postom boobu ñu teg ko saa njóogoo ma gënal man gëmul Ousmane sonk te lu weer leer laa ci xam moo tax yéen yi nga xam da ngeen di chronique bu leen di wax nii rek da di wax xool di ngeen wax segg ko wala ngeen laa nga xam Moussa Balla dama ne wenn dàllu Baara Gaye moo ko gënal Ousmane Sonko waaw karimiste la Karim xolo Karim Wade ak Abdoulaye Wade nostalgique la waaw waxtaanam yëpp ba ma nekkee ministre de l'urbanisme ba ma nekkee nangam yooyu lay wax yooyu lay wax théorie yomb na trop waaw mais réaliser li ngay wax moo yombul dama ne bu ci Ousmane Sonko jógul ñi ñuy nommé def leen ci attention lu aw këyit ay diplôme diplôme ay lan yéen sénégalais bu ngeen gore woon bu ngeen gisee ab diplôme da ngeen di daw réew mi li ko yàq lépp borom yi diplôme lañ français yi lañ jàngal te français yi ay sàcc lañ xol li français yóbbe ba paré jangal suñu dom def ngeen ni war na no mëna yor way sa ndiogu del ci len dem leen ci daara ngeen jël xalé yu jang waaw ñu yor rew mi ha li ak ku mëna gérer kër ha ah, war nga mëna a gérer état du dara ay tapalé dong la ay waxtaan la ak conseiller ak dugg ko genn système bu ñak solo la da melé ne wela ci goni ci gone wax muy daw waaw jël leen ñi mën a liggéey ñu jël leen dugg leen ci daara jël xale yi jël nit ñi ñoo ci immigré jël leen ñu futti ku liggéey waaw lii ma leex mooy li am moo di nekk fi aux États-Unis même ñi laal ci mbedd mi la li laal ci mbedd mi dañoo maîtriser système bourse bi waaw les bons du trésor dañoo xam ne koy jënd moo di ay fol portfolio lañ yor ngeen xeeb moo di jël ay diplômes yu bon yi nga xam ne xamuñu dara borom diplôme yi yëpp complexe lañ Dakar li ñu dëkk takk seen jabaru lébu wala ñuy euh, takk jabaru Dakaaro xeeb seen dëkk bu ñëwee seen dëkk rek ab dëj la wala ku faatu moo leen indi seen dëkk xam naa leen billaahi wallahi jànguñu li toroxal Sénégal du kenn ku ci borom diplôme yi te bu ngeen jógee ne yàcc ko indiw këyit ngeen mel lay dof topp ko ah amuñu xam-xam billaahi amuñu xam-xam te lii ma lay wax lii ma lay wax boo jëloon Moussa Balla Fofana tey nga jox ko taxi doon di juróomi dërëm ci kër gi du fi indi ñaari dërëm moo tax muur yi dawal si nekk ci lépp dañoo jàng boole ci boole am xam-xam ne ci bourse bi di daw ko dikk bu leen fonto Moussa Balla dàq leen ko. fii aux États-Unis boo mës a fay lempo doon la nommé ku nekk président bay dem ñi nga nommé ak leen di yóbbaale kenn du fi toog Ousmane Sonko bàyyi ay nit ñoo xam ne ci gouvernement yi nag fat leen billaahi wallaahi bu muy doon dóor loxoom ci ëkk. waaw na dàq ñi ñu dem dama ne ñu man dafa réew mi ñu ngi fi ñi développé Japon amuñu xam duñ dara waaw duñ dara am ay ngëm-ngëm la rek ngi Corée les taïga coréens yi fii lañ jógee dem defari Corée ah jóg leen ci yii te bàyyi caaxaan yi dàq leen musaa Balla mu dem nañ ko dàq mook sàmba Ndiaye te ngeen vérifié at gouvernement bi vérifié at leen gouvernement bi Moussa Balla gëmul ne Sénégal man laa maanaam xaalisu boppam gëmu ko def na ci ay émission sa njóogu demal nga xol ko wat émission bi moom gëmul ne Sénégal mën nañu am seen xaalisu bop gëmu une monnaie nationale gëmu wa doxali doxaaliwu ko sax def nañ ne nous sommes faibles wa li may wax moy li am luma leen wax vérifier leen ko wa ki su Ousmane Sonko dàqut Ousmane ci mom moy am problème wa gëmu ko Cheikh Anta Diop daan wax le diplôme n'est qu'un bout de papier prouvant un degré de connaissance maanaam diplôme sagaru kayit la woo xam ne ab tubaab ba ko dagg ab tubaab ba ko dagg teg ko say loxo say bokk joxu la ko mais sa sa xam-xam fii la toll sa degré de connaissance fii la toll waaw ab tubaab ba la ko jox tubaab boobu nag moonu doon jàppi jaam tubaab boobu noonu ma sa duma tubaab bi moo tas adduna bépp moo ko tas c'est ce tubaab laa jàngal sa doom moo di sagaru këyit indil la ngi jël sa alal réew ko torox nga waaw toral nga nu ngi jégalu bu baax nag tey ziara tey ñaan jàmm. Euh, man la Seydina Ousmane Dramé wala réveil de consciences ngir yàlla ngir yàlla yeewu leen ngir yàlla ngir yàlla yeewu leen ci réew mi peace and love. salaamaaleykum mbokku Sénégal salaamaaleykum mbokku diaspora bi gars yi maa ngi leen di jaajëfal bu baax maa ngi jaajëfal activiste yi yëngu yëpp. ngir leeral li waral leer ci bopp sénégalais yi euh, di jaarale sama message ci yow nag pour nga partager ko mu yaatu ndax euh, li ma ci wax nii dafa am solo te sénégalais yi war nañ xam li waral Macky Sall mënul génn ci géewu politique bi ak li waral muy ñëw chaque fois kenn moo ko yónni ak lan la fiy def en tant que ku jiite réew mu Sénégal fukki at ak ñaar nekk président di xëccoo pour nekk député assemblée nationale ñu bëri nag yaakaar nañ ne xëy na immunité parlementaire dong moo tax na am loolu bokk na ci sax parce que ñi ko yónni bu amee loolu biir Sénégal rek euh, dañ ci mën a sukkandiku pour def li ñu bëgg a def waaye li ci ëpp solo. mooy li sénégalais yi war a xam mooy euh, xeebuma député yi nag waaye président de la république bu ne dafa bëgg a ñëw nekk député loolu euh, lu ñu mësul gis ci àdduna la te lu doy waar la te li koy waral souvent nit ñi dañ ci war a poser question ce qui se passe mooy Macky yoon Sénégal fukki at ak ñaar waaye li ko fi bàyyi euh, maanaam ñi ko yónni woon li ko téye woon pour mu di len doxal seen liñu bëgg def ci biir Afrique comme Alassane Ouattara ak ak ñoñam Macky Sall bokkon na ci loolu manam rewum tubaab yi nga xamne tay ji Afrique développé ñom du len arranger ba taxna ñu bare bare bare bare démontrer nañ ko wane nañu fi nga xam terroriste du fa am dara du fa am waaye dañ fay Euh, créer seeni terroriste créer seeni mbir pour téye dëkk boobu mu jaxasoo ndax ñoom seeni intérêt dëkk ndax ñoom tey euh, ku ne gis na réchauffement climatique bi nu mu leen nu mu leen sonalee ku ne gis na ni taw yaa ngi fépp mbënd maa ngi fépp waaye sedd bi nekk seen réew yi gaz ak pétrole ñoom dañ koy soxla fi mu nekk ni sax ñu ngi xeex euh, pétrole gaz lañ gën a soxla waaye problème Russie ak Ukraine taxna ba ñom dañu tiit sen gaz bi té comme Sénégal amna gaz gaz euh, yu mel nonu dañ ko yàgga lal seni pexe pour yóbbu fa Sénégal naka noonu nag Ousmane Sonko du leen mos arranger parce que Ousmane Sonko da fi nekkal Afrique nekkal fi Sénégal pour souveraineté ak autonomie ak liberté totale bu Sénégal ndax réew mo xamné fukki ressource ak ñaar ñu ngi foofu yoo xam ne benn kese bu ci nekk bu ko réew amee rek mën na ñëw waaw loolu Sénégal mooy réew moomu Sénégal li mu am ci ressource naturel kenn xamul nu mu toll am tamit géej am lépp lépp lépp loo xam ne day dox kon Sénégal kese kese kese néew ma la France waaye réew union européen Sénégal limu len meuna apporter dafa bëri ku ne gis na oru Sénégal jama bi neub nañ ñuko mais or bi kessé bu ñu gisee nu muy doxé amul benn jigéen ci Sénégal wala kenn ci Sénégal ko xamné ne yaa ngi takk oru Sénégal té pourtant banque yu mag yépp or bi joggé Sénégal bi joggé Sénégal bi nga valeur bi mu yor mo garantie économie banque yu mag yépp waaye or bobu dañuy gis avion day joggé Sénégal dem bitim réew. ñan ñoo ko fay yóbbu nuñ ko fay yóbboo ay toni toni toni ton te sénégalais amul kenn koo xam ne tëggu Sénégal nga wala lenn ngay liggéey ci ci ci euh, Sénégal mu nekk ooru Sénégal boo xam ne suñuy jigéen suñuy kii ñu ngi koy takk loolu nag li ko waral mooy li nekk si ginnaaw moo rëy ndax Macky Sall ba muy wax ak sénégalais 43 milliards armement la jënd dugal ko ci réew mi ba pare ne sénégalais soo leen organisé wul ma jox. ñi gën a organiser ñu yor réew mi wax na ko ci kanamu Sénégal yépp kon ñan ñooy ñi organiser wu ak lan moo ko yónni ak fit bi mu am ak naagu ga mu amoon ba buggoon def troisième mandat ña ko ko doon forcer loo di ko def ba mu paree ci réew mi balaa moo jeexal ñooñu ci lañ ko jox liggéey mu dem di liggéeyal France te njiitu réew yor secret réew. yor armée yor police lépp luy souveraineté réew mi contrat yeeg yëpp yaa ko signé yow balaa ngay jóge ci réew moomu am beneen réew bu la jox liggéey ne la kaay liggéeyal ma te sax ci élection présidentielle dañuy wax ni boo amee ñaari nationalité mënuloo nekk président ndax intérêt yi réew moomu yow nga yor loolu yëpp fukki at ak ñaar nga pare dem liggéeyal beneen réew loolu xel mënu ko nangu. c'est-à-dire bi muy liggéeyal France secret yi mu yoroon lépp luy Sénégal ak lépp da ko yor dem toog ak ñooñu di liggéey li ñu war wax sénégalais yi ñu xam ko mooy France boobu fan yi ku ne xam na ne képp ñëpp ñu ngi tiit ci guerre mondiale gis nañu diggante Russie Ukraine gis nañ diggante euh, Israël Iran Palestine loolu nag euh, ci taarixu réew mi bu ñu xoolee ne serait que Israël ne serait-ce que Palestine kako jite won woon passeport ba mu doon tukkee passeportu Sénégal la euh, synagogue bi ñu njëkk tabax ci Afrique Sénégal lañ ko tabax Sénégal dafa mësa impliqué wu ci loolu kon loolu ñu leen koy xamal ngeen bàyyi ko xel ndax dafa am solo ci li may ñëw wax ni guerre mondiale bobu nit ñi tiit te Sénégal am solo ci aduna ba tax njiitu réewum di ñu ko ci Europe. mu am mission yuñ koy sant envers Afrique muy Macky Sall dama leen bëgg wax lutax muy ñew pour bëgg a nekk candidat ci assemblée bi te wu ko euh, fii ñu toll ni muy Algérie muy réewum Afrique yu bari dañ ne dañuy voter pour que France bañ am droit de veto Nations Unies parce que guerre mondiale bu France voté pour mu am. africains yi ñoo koy guerri te arrangé wul Afrique Afrique gañewu ci dara ñu ngi waaj a nangu France droit de veto ci maanaam Nations Unies léegi nag France mission mooy ay jawrinam yu mu doon yónni Afrique ak yooyu donte jóge nañ ci nguur yi nañu dellu Afrique am fa doole doxal continuer seen mission. c'est-à-dire à travers les forces organisées de Macky Sall muy ben. le bi Ousmane Sonko ak projet souveraineté ak yoy. lenn moko meuna téré dem assemblée nationale ñu bañ fa am majorité Té bu amé majorité assemblée nationale C'est loi yi nga libérer Sénégal pour que France meuna am ci mom Wow, bu ñu bu majorité du am Lolo moo tax jawriñu réew yi nga xam ne dañu de a continuer di am ci Sénégal baat faw Macky da leen di ñëw teewal biir assemblée nañu doon xeexee nag ak pour libérer Sénégal ci dictature ci troisième mandat mu échec ko ñoom jàpp nañ ne mën nañu tenter siwaat assemblée Macky am fa ndax mëna contrer loi yi nga xamné ne day dog bu mu ndiam bi nga xamné ñom ñoom ñu ko doon teg Sénégal ay at ak Afrique ay at té Ousmane Sonko ñew dog bu mu ndiam boobu légui nak l'objectif de Macky Sall ci biir assemblée Sénégal bu sénégalais yi nelawee yeen bu leen nelaw il faut ngeen xamal ko Sénégal ndax kenn mësul gis njiitu réew 12 ans président nga ne da ngay ñëw xeeblu sa bop pour nekk assemblée tête de liste lolu ku xam Macky Sall ham bi mu jógee Sénégal déjà dafa dem jënd ay chalet ay hectares yu bari Maroc dëkk fa jënd jet privé 30 milliards nek ci Sénégal intéressé tout ko mais mission lay dox te mission bobu bu Sénégal yi nelawee ba ba ñu am lu tollok député buy buy buy buy empêcher, Ousmane Sonko mu am la majorité qualifiée wala la majorité absolue dinañ tooñ Sénégalais yi dinañ tooñ Afrique donc kooku dafa war a nekk loo xam ne yéen ñi nga xam ne xam ngeen enjeu yi am ci àdduna bi ak àdduna fi mu toll da ngeen ko war a xamal sénégalais Macky Sall ci liste bu mu bokk liste boobu benn député sax waruñu ko am ci senegal donte nag nax nañu ay sénégalais am na ñoo xamante ne ñu ngi ànd ak ñoom guddeeg bëccëg di yuuxu di saaga nit ñi te ñoom seen bopp xamuñu fi ñu amul kenn ku ci ku la ciy wax wala mu démontrer la lan moo waral Macky Sall nekk candidat wala mu bëgg ko te ñoom sax bu ñu xamee bu ñu doon gëstu dëgg dëgg lan mooy député mooy ki la xam ne daf la war a teewal ci péncum ndaw réew mi défendre say intérêt te Macky Sall daf leen wax ni mu ngi ci liste bi waaye bëggul nekk député kon soit yeb na leen wala soit am na lu ko indi te loolu ñun ñoom ñu ko wax ci kaw tubaab yi bégg waaw muy comme ay seen yeneen pion yi nga xam ne doomu Jean Paul Diaz muy Barthélemy Diaz Jean Paul Diaz bokk ci jawrin yooyu may wax lëkkaloog Macky Sall te du mos a ñu am seen pion mu jaral la ñuy sacrifier seeni doom ñuy dem taxaw di rey ay sénégalais vidéo yi di leen filmer te dara du leen ci fekk sénégalais yi dañu war a xam ne am na lu nekk ci ginnaaw loolu ñu fexe nag ñu fexe nag lépp lu ñuy def ñu jéem a gëstu suñu réew fi mu toll. ban njëriñ la am ci àdduna bi ak Sénégal bu libre lu xew ak li nekk ci ginnaaw saa réew mi demee ba ñu war a stable ñoom ñu sabote système bi doog a dem ci tubaab yi parce que moment yi Macky Sall jékki-jékkee di embauché di di jaxase caxat caxate nguur gi parce que mu ngi dem mooy moment yi nga xamante ni tubaab yi digg nañ ko liggéey sant ko ne na def loolu ndax Ousmane Sonko bu ñëwee mu échec. loolu moo waral li nekk ci ginnaaw mbënd meek li ginnaaw ak yeneen ak yeneen yoo xam ne campagne bu ubbee dinañ ko xamal sénégalais kon muy loo xam ne dañ ci war a dañu war a génn ci politique politicien xaxar bi saa bu ñu demee ba war a am euh, lucidité xalaat suñu réew yóbbu réflexion yi ci benn niveau bu profond nga gis ñoom ñu génn ay genre Barthélemy Dias Bougane Gueye Dany ak yooyu génn pour distraire sénégalais yi ndax ñu bañ a xalaat ne yii ñuy def yëpp cinéma la ay affaire suuf la mais li nga xam ne mooy profond ci biir loolu Ousmane Sonko xam na ko gouvernement bi xam nañ ko parce que liñ doon bañ mooy ñëw toog saytu te loolu la gouvernement bi def saytu nañ xam nañ lépp noppi nag tegu ci kawam kon li fii ñu jëm nii du élection bu bu bu ñu war a ñàkkal fayda wala ñàkkal ko ful li élection yu am solo la parce que gouvernement nga fal gouvernement boobu mënut a def lenn te député yi voté ko bu fekkente ne sénégalais yi joxuñu majorité bi Ousmane Sonko ak Diomaye mooy ni que liñ leen fal amul njëriñ parce que Sénégal ñetti pouvoir la am exécutif législatif ak judiciaire exécutif bi nag boo ko falee da koy jox lépp lu war pour li nga yaakaar ci moom mu mën ko def. te assemblée bi nak ñii tappalekat yi loolu lañ fas bloqué te dafa bëri ay réew yu mag yu bëri yu nekk ci ginnaw pour assemblée bi Ousmane Sonko bañ ko am mo waral retouru Macky Sall mo am fit mo waral yenen ak yenen. waye comme limay wax rek ñom seen bop muy Amadou Ba di ñi nga xamanteni ñom xam nañu ba pare continuer di insister man gëwuma né Amadou Ba sax dina dem ci élection yi man gëm naa ne dina jàppale liste parce que bu dee nit la une faute avouée est à moitié pardonnée comme moom bu ñu seetloo ay kàddoom ba ci gémmam bu mujjee bi war nañ xam mu ngi mu ngi sax ne Ousmane Sonko wax wala 2021 wax na ko def na ko kon def nañu li ñuy def moo xam lan moo mu Macky Sall il n'est jamais trop tard pour bien faire nañu dellu ginnaaw xam ne réew mi tamit ñoom ci lañu bokk waaw loolu daal defe naa ne sénégalais bu nee war na ci bàyyi xel.